dañ ñu dafa jaune noir. ah na. alors ñu accueillir suñu invité bu leen fàtte 100000 yi ah kan moo ci nar a dal fileeg 11h 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 on accueille notre invité. notre invité Mia Mia Mia Mia Mia Mia <laughs> alors da ngay def test ba pare. da nga def test ba pare lii neex nag. Ah. j'espère que dinaa am ci ci bisu bisu yi ma tëb góor yi dafa ah. ah. <laughs> duñ ci am non non non. xale xale Pape Cheikh nu mu tristé. daf may neex lii. <laughs> ah daf lay di xalaat. xam salaamaaleykum. gisoo ni ma dama la sukkal gisoo ni ma leen sukkalee. ah loolu dara sukkal tegal sa bagage nga ñëw. nga ñëw ci nga jaar ci jaar ci test bi tegal tegal sa bagage. d'accord tegal sa bagage. voilà ñëwal kaay test bi lan la moom. kaay Adama ne waaw jàng yi commencé tina. tubaar fakal la macha hmm. teraanga yaa ngi ñëw. jàng yi tubaar kàlla. tuddee nañu ko yaayu Mado. Mm. Elvi non. oui oui <laughs> ok. <laughs> damay bañ kat dama ma sama yaay gaañu na de. <laughs> Aïcha tabala la. on va voir a ce que mën nga tëgg tabala yow. mosuma ko tëgg de. mosoo ko tabala neex na la. waaw neex na ma. ban wooyee ban wooyee daf ma ragal. mi ngi lox eh, <laughs> dara xewul est-ce que mos nga déglu ay woy yu ñu woyee tabala waaw comme ban way euh, Youssou Ndour ak. Euh, Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye est-ce que da nga bëgg ñu tegal la ko. waaw tegal leen ma ko. buñ ko tegul nag ah? buñ ko tegul nag. boo ko tegul ma woy ko. woy ko ah c'est bien. Ah, woy ko wala nga tëdd mais nag sama baat neexul. ah vas-y ñun ñun sooba teel la ñuy def ah, kon mbooloo mi mbooloo mi ñu bàyyi leen ak Seyda Mia Gueye. tubaakalla mooy kuy jàngal man jàngal la. ah jàngale woo <laughs> ah yi ngay def kan da koy jàngale. <laughs> ah waaw waaw diina bi laa jàngale woon. <laughs> wayal ñu ko ñu xool. s'il te sarax ñu rek kon nga tëgg da ngay tëgg wala nga way demal ma xool. ca yàlla. moom de dafa ragal yëf yi. tamit ku nekk ak sa yëf. waaw tàcc leen ko merci Mia ah Mia moom euh, dañu ko xam ci euh, ci télévision d'abord. Ah, euh, ñu xam ko ci wàllu création. Mm-hmm. mode waaye mode pour voiler. waaw maanaam ni ñu tuddee Ibadou. léegi da ngay toog ci sama ruq bi. ma ñëw fekk si la foofu soxna soxna soxna soxna Mia mm-hmm. alors. na doxale doxalee. maa ngi nii rek mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. Eh, da muuru. waaw muuru dafa xew. ah xew na instant bi de. Ah. waaw lan moo la ci dugal. Euh, enfin mës naa muuru. Mhm. mais boobu gënoon naa nekk xale. parce que ñun bi lay xam yow muuruwuloo. gis naa la ci ay publicité yàgg nañ la ci télé bi. nga doon def say brushing. Mhm. ak say datt bàyyi. ak say chignon haut ah, ak say cheveux naturels yu lu ma yàgg bëgg la. Mhm. Euh, bien que maa ngi doon def télé di def greffage def yëpp yu xale yu jigéen di def. et nga doon def comme Mado ah di leen di di kii def leen nii greffage bi dugg na fi génn na fi voilà <laughs> mais en la uh-huh. euh, bi ma amee saison njëkk naa muuru. Ah, waaye muuru bi yàggul une semaine la def. lan moo la ci génne woon. <laughs> une semaine déedéet kii rafle. ah rafle yére ndax dama muuru benn yére laa sol lundi. Ah. ba dimanche. dimanche ma simmi ko ndànk. Ah. defaat sama jupe ak sama o génn dem. rafle bi la ñu bëggoon la ñu bëggoon waxtaane surtout parce que euh, ñu bëri dañu bëgg a muuru il paraît parce que dafa xew mooy li gën a metti tendance la waaye baax na itam ndax jigéen day muur ay cëram mhm. donc tendance bu baax la mhm. moo tax ñu recevoir la tey ci émission bi voilà justement donc bi ma muuroo noonu à 16 ans aw moon yére ndax temps yooyu maa ngi nekk adolescente waaw temps yooyu ay corsaire a xewoon yooyu yooyu laa bëri la woon ay kii am na yu gën a gàtt ah. am na corsaire yi am fente bi nii yooyu laa amoon yëpp kay ok voilà ma xëy rek man daal julli vendredi rek julli ba pare rek ne dootuma muureeku. ku la feeñu kenn. mën ne dootuma muureeku wax ko ku ma ko wax waa kër gi ñu ne ma d'accord xam naa dañ ne kii daal xam naa adolescence nii nii rek. Mhm. mais lu ma yàgg bëgg la. Mhm. donc ma toog ba vendredi aw ma lu ma sol. Mhm. war a génn aw ma lu ma sol ma sonn rek delluwaat ci yére yi. ok solaat ndànk sama jupp génn dem. Ah. waa koñ bi ñëp di ma ree <laughs> mais en plus tam dafa amoon genre kii ñëpp naan ma di ma tiital naan ma ay ah boo muuroo te pareegoo boo ko muuree da ngay dof ah. <laughs> waaw xaw ma tàngaay bi dafa metti am na ñoo xam dañuy muur di am ay picc ku ne di wax man daal wax yi bëri sama bopp rek dimanche jot ma dindi <laughs> solaat sama jupp ndànk <laughs> loolu la mais lu ma yàgg bëgg la nag ah. franchement ba pare ah. sama turandoo mm-hmm. dafay muuru mu ngi may mm-hmm. dégg xam naa instant bi ni mm-hmm. dama judd fekk ko muy muuru donc mu nekk loo xam daf ma neexoon ci moom waaw mosuma gis karawam ah. mosuma gis kii dara donc loolu marqué ma ma yàgg ko bëgg Euh, su ma daan gis sax kuy musóor wala kuy mu dama noon ne tôt ou tard lii laa bëgg a mujjee d'accord mais xalaatu ma sax man dina gaawee nii en fait uh-huh. donc dama xëy benn gàmmu def na un an léegi uh-huh. gàmmu jot donc euh, comme ñëpp gàmmu bu jotee da ngay toog muuru jàpp julli sellal uh-huh. rek ma yeewu ne lii daal xaara autant daal euh, nekk ci wala bañ ci nekk parce que dama daan teg greffage bu may jàpp war a julli su ma paree sama bopp bi xeeñ may séché yooyu noonu affaire bi mujjee metti ma ne xam lan la yii yëpp laay teg jël bale te ma ko loo ci gis boobu ba tey. jàmm jàmm ak économiser xaalis bu bëri. Mm. su ma fàttalikoo li ma doon jëndee cheveux naturel. Mm. dama koy réccu. parce que mën naa ci def projet. deux cent mille ci cheveux naturel. ba pare li ma si gis tamit moom mooy. Eh. Euh, balaa may muuru dama ne du ma woon sénégalaise. Mhm. lépp laa woon xëy na. Mhm. parce que tey nga ñëw def cheveux brésilienne. Mhm. nuroog ñoom. dëgg la suba nga def indienne nuroog ñoom. mais bu ma muuroo laa sentir ne africaine laa. laa sentir ne sénégalaise laa. parce que toog naa fi benn période ma ne dama bëgg a retrouver sama vrai karaw. mooy karaw naturel nappi. loolu tamit benn temps crépus non waaw ah, benn tendance la waaw mais cheveux crépus la donc euh, ma bëgg ko retrouver affaire bi matul 3 mois ma bàyyi def frisage bàyyi yëpp. Uh-huh. mais après ma sonn mënu ma toppatoo. sama bopp bi ak peñe mu laa bàyyi woon. trois mois sama bopp bi xaw ma lu ma koy def ma ah. bàyyi mais bi ah. ma muuroo ah. loolu dafa yomb ci man parce que boo muuroo doo fi teg greffage mhm. euh, doo doo défriser mhm. da ngay toppatoo sa bopp en fait mhm. ndax di nga def ay bain d'huile di nga def ay bain de crème di nga toppatoo sa karaw normalement donc ma am léegi karaw bu mel ni coton ma ne eh ak kon ñun lii lañ am ndekete <laughs> ñu jël ko yàq ko nii donc maintenant je, plus que jamais je me sens vraiment <laughs> euh, sénégalaise et africaine, dalal ak jàmm. merci beaucoup lu bëree bëri ci invitation bi. mais d'habitude tout le temps dañuy dégg nit ñi di wax euh, nee nañu bi ñu eh, seetloo eh. sa muuru. Mm-hmm. bi nga amee borom kër. Mm-hmm. ci nga commencé di muuru. Mm-hmm. nee nañu est-ce que du sa borom kër moom moo la euh, exiger pour nga muuru. déedéet euh, muuru bi li ma lay wax bi may muuru aw ma sa boroom kër. voilà donc amu si benn impact. Mhm. Euh, bu doon loolu la kon xëy na voilà moom mu rek wala dara amu ci benn impact loo xamante ne c'est euh, une décision boo xamante ne man maa ko jëlee sama bopp. Mhm. nit influencé wu ma si. Mhm. sama parent ndax am sama yaay sax muuruwul léegi daf ma naan bu may ànd ak yow damay jël sama kol muuru balaa ñu naan doom jaa muuru te yaay muuruwul. <laughs> loolu la sama mag muuruwul et cetera ñooñu ñëpp en fait léegi kenn ku dul sama turandoo daal. muuruwul. ok waaw à part sama maam bi nga xamante ne tamit mooy euh, mag bu yiw la woon itam. kenn koo xamante ne influencé d'accord alors ñu gis ni itam euh, léegi euh, bu weesoo loolu da ngay euh, jàppale ñi nga xamante ne ñoo muuru ci seen wàllu sañse voilà est li la li la daloon ngay bañ mu dal leen voilà justement en fait balaa ma doon muuru dama defoon formation concert en image comme dama doon ne si télé mooy comme ma doon ni toog di digal nit yi yenn saa nga am ay xarit yoo xam dañ la naan gunge ma ma jënd yére xamoo boutique bu baax bu ñuy jaayee daal et mm-hmm. ngay gunge nit yi mm-hmm. après ma nekk def ay recherche sur internet ba gis ne loolu en fait c'était un vrai métier donc am na ñoo xamante ne uniquement loolu la ñuy liggéey par exemple même star yi wala même n'importe qui mhm. day am koo xamante ne moo lay accompagner ah. voilà et puis euh, yow mhm. yaa gën a tax nag ma dugg ci parce la doon seetaan dem ba def ko donc tu veux ah, parler du volupté <laughs> ah, oh. c'est la réalité <laughs> ak yooyu war a accompagner nit et tout ça wan ko lan moo ko jàpp lu mu war a sol lu ko jàppul et mhm. donc ma ne xaaral dem defi formation bi ndax dara boo ko bëggee mhm. da nga dem ba ba pare dem nga jàng ko pour mën si digal nit dara. da nga sa agence ak yëpp waaw voilà donc ma def boobu muuróogu ma ma def formation ba pare. Mhm. donc formation bi li si ëpp moom mooy par exemple tey ji boo jëlee kanamu nit. Mhm. nga wan ko wax ban genre coiffure la war a def. selon forme kanamam ban coiffure moo koy jàpp bi ma ko defee nag ba pare nag. peut-être un an après laay doogu muuru. sama yaay na gis nga léegi mais plus accès su su ñi nga xamante ne ñoom ñooy muuru parce que ñoom ñoo am problème mm-hmm. tey ji ñeneen ñëpp am nañ seen salon de coiffure am nañ seen salon de beauté am nañ yëpp mm-hmm. mais ñii muuru dañu am problème boobu mm-hmm. ba pare li ma daloon nga nga muuru une semaine xamoo looy sol xamoo nooy muuroo et cetera donc dafa metti début début début muuru bi peut-être trois mois yi moo gën a metti ñii muuru yëpp Euh, boo dépassé 3 mois yi rek après mën nga yeggale mais 3 mhm. mois yi boo ko dépassé doo ko muuree ko waat mais léegi est-ce mm-hmm. man léegi en fait dama damay defal ñii muuru par exemple dama leen di defal tri garde-robe mm-hmm. parce que boo muuru en général sa xarit yëpp dañuy daw ñëw ne la jox ma sa yére yi ah, dootoo sol lii dootoo sol laa nangu cheveux yi man moom cheveux yi lañ njëkk nangu may dégg <laughs> ma jox leen ko par exemple sa yi yëpp la ñuy nangu naan la dootoo sol bu gàtt dootoo sol lii dootoo sol laa uh-huh. donc man dama leen naan déedéet uh-huh. boo muuroo bul maye dara parce que yére yooyu noonu ngay uh-huh. complété ak leneen tey ji boo muuroo il est évident que doo sol oo boo xamante ne fii la yem mais ana veste waaw ana veste ana boléro mm-hmm. ana yooyu yëpp yu gudd quoi waaw yére yu gudd yére yu gudd euh, boo muuroo mënoo mm-hmm. sol bustier mm-hmm. mais ana veste encore. Mhm. ana boléro ana châle. Mhm. man damay sol bustier ba tey. Mhm. muuru ak col bu gudd mu wàcc nii si kanam. yaa ngi sol jean ba tey. di sol jean ba tey parce que en fait muuru tam étape la. Uh-huh. c'est-à-dire dama damay wax ñiy muur ak ñi muuru lu yàgg nañ tolérant ak ñi ñi bees ñi. parce que dara xëyul sotti. comme on dit Paris ne s'est pas fait un seul jour. moi la Mecque ne s'est pas fait en un seul jour. yonent bi xëyul rek diine bi wàcc rek ñëpp accepté. donc du nit buy commencé muuru nañ tolérant ak moom. Euh, li mu am loolu lay sol. ba keroog en fait garde robe bi. Mhm. di changer ndànk-ndànk man mhm. j'étais pas trop jupe. Mhm. comme si média laa doon liggéey dem ay reportage j'étais tout le temps en jean. sol sama lacoste ak yooyu gaawantu une femme pressée quoi. donc du coup euh, mënuma xëy rek am ay jupe. waaw ne nii defe naa maa ngi ci ñeenti jupe. <laughs> bëreegul. di nga di nga di nga relooké léegi nii. Euh, voilà bijou. waaw donc li ma la doon wax si si si si si relooking bi noonu. gis nga nit nit yëpp. xeetu kanam yi rek lañ am. exact yii rek mooy yii rek ah. moo am. mais yaa ah, may ma diamant bi visage diamant. man du jigéen waaw yow xaaral wax leen ko. Ah, euh, mayel caméra bi donc yii xeetu kanam moo am. donc léegi nit bu nekk nag am nga ay atu mooy loo xamante ne moom mooy sa plus. am loo xamante ne moom mooy sa moins. donc léegi. huit euh, xeetu kanam moo am waaw xeetu kanam yii nii moom moo am. ovale carré oval long. rectangle triangle hexagonal rond mhm. ak triangle haut donc léegi ku nekk am nga benn faiblesse par exemple kii nii euh, triangle bas fii woom moo gën a sew ah. waa léegi kii dañuy fexe ba waa dañuy fexe ba fii ak fii tolloo mën nañ ko def ci muuraay bi bu mm. fekkee kuy def coiffure la mm. mën nañ fexe ba par exemple nga def coiffure boo xamante ne fii dafay bëri gis nga am coiffure mireille yi wala genre yuy wàcc ni léegi bu ñëwee ni dafay équilibré jox forme jox ko forme kii nii nga xamante ne ovale la ñaari côté yi moom moo sew uh-huh. soo ñëwee par exemple di ko muur nga muur ko muuraay boo xamante ne rek dafay ñëw rek wàcc ne uh-huh. kanam moom dafay gën a gudd ah. donc yow da ngay fexe ba jox ko volume fii ci hmm, côté donc muur yi ngay gis ñu am ay fleur wala ñu am dara ci côté bi tout ça loolu la da ngay valoriser kanamam parce que am na ñoo xam dañuy muur seen kanam réer wala sa kanam waaw sa kanam wala sa kanam nga mel ni man ah, mun na mun nañ la defaral kii quoi pour jox ko valeur gis nga kii nii kanam bi dafa xaw a góore tuuti gis nga ni mu mel ni fii waaw kii excidex yow sa bopp bii la waa yow yaa ngi fii carré donc kii tamit même bu dee <laughs> muy coiffure wala muy muuru tamit ah. da ngay fexe ba nga da nga adoucir fii d'accord waaw fii bañ a mu bañ a dëgër bul def mm-hmm. muuraay boo xam dafa naan kàdd nii fii gën a feeñ mm-hmm. da fexe ba fii mu am lu rond daal lu koy jigéenal waaw nga nga rafetal ko donc loolu la donc loolu laay ni jàngal donc loo muuru muuru da war a saf jigéen a ah, jigéen day saf jigéen jigéen day saf jigéen jigéen day saf jigéen parce que ñun en fait dañoo organisé woon benn euh, journée euh, journée mondiale Hijab Day mhm. donc c' une new yorkaise qui l'a organisé mhm. bi nekk deuxième édition bi dëkk yu bëri tam reprendre ko mhm. mais ñun ñëpp dañoo dem toog ci benn oustaz ku ne di ko posé question muy oustaz Alioune Sall ma koy nuyuwaale ku ne di ko posé question par rapport ak muuru bi ñu naan ko oustaz euh, maquillage nag bi mu nee maquillage rek ñëpp dul wax naan wuy sama ah, a muuru ñëpp a maquillé ba saf rek mu ne <laughs> na def loo xamante ne ku ko xool xam ne jigéen la ah, excès excès la ñuy bañ ci lépp mhm. xam nga excès nag ñëpp xam nañ ko excès mooy boo tolloo fële ñu daawoon naa dégg ñu ne Ibadou du photo man loolu daf ma mës a ah. est-ce que ah bon ça devient compliqué ah ma choqué sax ça devient mu ne ma ñett uh-huh. am naa réponse bi moo tax laaju ma la ko mais photo sama choqué nañu xaar Taïb Socé waaw bisou alors man ci tolérance bi nga doon wax tout à l'heure laa bëggoon ñëw parce que souvent boo gisee jigéen ñu muuru yow boo muurul bu ñu la gisee tu as l'impression que dañ lay minimiser que dañ lay xeeb tu te sens jugé en fait est-ce que muuru bi loolu dañ leen ko ci inclure non kenn inclure si loolu mhm. euh, que nit kenn ko xeebal diineem c'est pas parce que da nga muuru ko yaa gën nit yi mhm. li ci xol mhm. yàlla moo ko xam mhm. da muuru parce que en fait loo xam ne obligation dañ ko demander à jigéen ñëpp lañ lañ sant ñu muuru donc lu nekk kii la prise de conscience man muuru ma woon avant dama daan digal nit yi def leen cheveux def leen laa ma xëy da am prise de conscience l'histoire retiendra ma woon te dama doon y a des preuves oustaz loolu may tooñee naan ma ay naan ma ciip ciip nga woon nee ciip ciip laa woon <laughs> boo xoolee boo joxee bisu nii. Uh-huh. Euh, euh, lan mooy baax ci moom. waaw man andi yu bëri. Mhm. Mm-hmm. jugal dem jugal waaw mën nañ ñëw fekk si la foofu. waaw bàyyi ma dem kon ah, on peut on peut te retrouver là-bas. voilà. Uh-huh. en fait ah. man dama leen di jàngal en fait façon muuru bu bëri. am pour les femmes pressées par exemple. Uh-huh. muuru boo xam ne day yomb. Euh, nga xam ne vite fait ñu def ko rek. Mhm. dem seen yoon. jigéen bi yàkkamti quoi waaw mais muuru bi ngay def par exemple cérémonie ah. warul bokk ak muuru bi ngay def tous les jours. Ah, voilà comme ni ngay amee xew dem salon ñu defal la chignon ak yow tam boo amee xew tamit muuru bi dafa war a rafet. ñu xam ne xew la du ah. du muuru simple. Uh-huh. <laughs> voilà léegi ñu dem kon oh. ci assistant am kaay kaay teel ma. voilà <laughs> <laughs> donc dafa am muuru tous les jours. waaw muuru rapidement dama koy defal muuru tous les jours. est-ce que mën nga dindi sa mëlfa bi s'il te plaît madame. non non mën na bàyyi mëlfa bi. non dama bëgg rek dama bëgg rek nga nga xool ko mu nekk jigéen normal. kay ma simil non non bàyyi ko bàyyi ko rek ak voilà voilà xaaral ma simil la sa <clears throat> mëlfa. comme ça nga xool bu fekkee jigéen normal. Mm. bu comme bu musul muuru. nan nga ko mën a changer. bàyyi ma simbi la rek. amoon na am naa yére ci suuf. voilà yow koy jënd sa loxo rek mu gën muy tekki. damay bañ yaramu neen bi génn. ah waaw yére ci suuf. ah amoo yére ci suuf. day wax rek. gëm leen yéen ñi seet ak. ay ci jógal taxaw ñu simbi la. voilà wàcce sa yére. sa taay baas na de. voilà. mël fa de la woon mël fa. lii moo nekkoon suuf mël fa. <laughs> lii rek la. waaw ah, da nga fayu da nga fayu. fayu naa fayu naa. ñu dem voilà donc comme jigéen nii musul muuru. waaw musul muuru voilà ay yu dag gàtt lay sol ay décolleté et bu ko def noonu mu war a sellal <laughs> noo koy defaralee. en même temps nga wax leen technique yi pour muuru naka la ñuy muuroo. Euh, nu gën a gaaw. Euh. bon Pape Cheikh amoon plus de temps xam naa day teg greffe. waaw loolu loolu la naroon def de ci la ci la naroon jëm. <laughs> jëlal malaaka bi te yàlla am na ko muuru ci koñ bi. <laughs> voilà en fait pour pour ñuy muuru déjà tamit euh, ngay jiital balaa ngay muuru baax na. Mhm. parce que comme en fait dañuy am souvent ay pic yoo xam ne moom ngay takk pour mën a pour affaire bi mën a téye. Mhm. Ah. donc il faut ngay musóoru ci biir. ah musóor bu ndaw ko waaw ah, musóor bu ndaw mais en fait ça dépend si matière yi ngay utiliser comme gis nga nii nii. coton la donc euh, du waaw. ci yàlla léegi léegi kon da nga war a tànn. col boo xamante ni selon selon saison bu nekk. Ah. am na col yoo xamante ne tey jii boo ma ko bëggoon col bu tàngaay jotee ah. du ma ko mësa def. ok xool ni nga rafetee rek xool ni nga niróo ni man. tu me rejoins la ma technique bu njëkk bi balaa ngay euh, muuru. nga musóoru nga musóoru ci suuf ba pare. voilà ci suuf ba pare ak tissu boo xam ni c'est selon période nooy bu dee comme seddaay bi nii voilà nga jël moom c'est toujours bien muy tàngaay di seddaay yëpp ok ça va mooy parce que du du du tissu boo xam ne dafay téye tàngaay d'accord voilà da ngay muuru ba pare respirer da ngay musóor ba pare morceau bu simple voilà morceau bu simple ok voilà léegi xemes na nga may fàttali. <laughs> d'accord bel xemes a ngi seetaan ah, en plus. ah mi ngi seetaan fii ñaari tali ji seetaan. xemes laa xam bëri na dinañ ko invité semaine prochaine. voilà léegi ngay soog a teg en fait kii bi col bi. su la neexee mën nga def nii comme genre bu mel ni dégradé nga xamante ne bleu bii nii dafay feeñ nii ah, beneen kii bi def nii. su la neexee itam mën nga ko muur yëpp waaw dégradé ko bleu bi feeñ mu xaw a tendance tuuti voilà léegi gis nga partie bi moo gën a gàtt. Mhm. benn partie bi moo gën a gudd donc. déet waaye def ni sama mannequin bi. parce que da ngaa fàtte ne ay caméra ñu jàkkaarloo yow. lii boo fi. donc partie bi da nga koy jël rek. Euh. def ko ni ah. ah ko nii. dafa am oh mais qu'est-ce qu'elle est belle oh, voilà c'est facile à faire mais la tokkoon bii non léegi nag boo amee. lii nu mu rafetee. yow moom yaa ngi dàq sa ginaar waxaale sa soxla nañ dem rek soo amee bu la neexee pour mu gën a sophistiqué. Oh. parce que li bu yomb la pour tous les jours mais boo bëggee par exemple même bu dee xew nga def sa benn broche bu mag fii nii. Ah. waaw bu fekkee nag pour tenue tous les jours. mu nga def sa ay pic yoo xamante ne. léegi picc yi li tax li tax musóor bi important parce que mhm. boo ko jamee ci musóor bi lay daal du dal sa bopp ah yu ndaw yi kon ah. dañ koy jënd mu discret waaw dañ koy jënd yi dañ koy jaay ci dëkk bi tailleur yeeg mercerie yi kii ni pince yi pic yi am am am na yoo xam dafa am yu gën a ndaw yi mais yii ni moo gën a discret am na ci mercerie yi am na ci mercerie yi man si sama tailleur yi laa koy sàccee ok <laughs> yére moom la ñuy jëfandikoo voilà hmm. ah muy lii moo gën a discret nag mhm. mais am na yeneen bu la neexee tam nga utiliser pic yi am couleur du saf kay nga xool jamal yow jam ko ah déedéet. <laughs> d'accord donc lii pour muuru tous les jours. waaw pour muuru tous les jours. ok am naa cousine buy muuru na bu ñam. j'espère que gis na tuto bi dina dina dina comprendre. Mhm. voilà. ok parce que parce que am na ñoo xamante ni am na ñoo xamante ni ex ñoom mënuñu une moon la. assistant ñoom nii rek la ñuy def ñoom regarde dañuy def nii rek après def nii rek xoola après def nii. waaw man yooyu laay bañ rafetul. yooyu laay bañ dafa metti rek la ñuy def dafa metti dafa metti. nii moo gën a. rafet. waaw moo gën a moo gën a ñemelu parce que en général dañu naan ñiy muuru affaire yooyu ça fait peur dañuy kii ak yooyu. mais parce que am na si ñoo xam dañuy ñëw rek mooy takk ko nii et tout. Mm-hmm. seen kanam bi def nii génn waaw dafa dafa oh. mais peut li ñu amul ay technique lool moo tax mënuñu mënuñu def euh, muuru yu rafet ak yooyu mais plus technique yi di avance parce que léegi ñi muuru bari na ku nekk am nga sa style ku nekk am nga sa technique voilà te looloo gën a important ci muur bi mhm. moom mooy en fait la religion elle dit que ne mooy tal parti tal parti bu mu feeñ mhm. donc ku nekk ak sa mhm. style man damay musóoru yenn saay damay musóoru te sama benn cër du feeñ parce que damay sol benn benn genre bonnet boo xam ne dafay ñëw ba nii mhm. Mhm. donc léegi mu musóoru ci kawam ah. voilà et là parce que parce que jigéen moom féppam awra awra la pareil la donc arrêtez avec vos histoires de ça là <laughs> mën ngeen xew bu ko def noonu bu ko def noonu xoolal ni mu rafetee xoolal ni mu rafetee xoolal ñëpp la jàpp et puis muuru ñëpp la jàpp ñëpp la léegi léegi jox ko micro bi ex comme ça mu bañ ko jox ko mal fa du comme am na beneen yére moom sànq am na beneen. c'est ça eh, leen a nekk. te xoolal dafa am eh, dem na wuti café bi. ah waaye eh, waaw <laughs> euh, voilà mu ngi noonu nag. Ah. yii laay wax yii mooy boléro. yii da ngay ñëw rek sol ko nii ah, rek mu dem. <laughs> voilà donc xam nga muy nii moom mu ngi sol oowam ci suuf. ok waaw oow am ngaal la sol mais bu mu ci tegee boléro bi ça change tout. en plus en plus man ñu lu may wax am na information bu ma am ci biir suuf dégg naa mës na muuru ibaadu. mës na muuru moom it. weeru koor mës na muuru ibaadu ah. waaw. dama koy wane de wala jarul ma koy wane ma bañ la weer ah. wane photo bi ci biir Facebook boo leen amee photo bi mun ngeen ko wane eh, weeru eh, koor yi eh, damay. c'est déjà bien weeru koor comme yi ñuy wax yére tubaab même boo ah. ko amee. mën nga koo garder. Ah, nga muuru en même temps parce que xam lay wax en fait religion. Uh-huh. Euh, c'est universel. Mm-hmm. tey ji tubaab bu ñëwee tuub nekk jullit du ñëw fii Sénégal di jël suñu ay mhm. grand boobu mhm. du dem Maroc tamit dafa jël seen ay euh, jelaaba mhm. li mu am uh-huh. loolu lay sol uh-huh. fexe ba liñ ko wax cër yi ñu ko wax bu mu feeñ uh-huh. loolu bañ a feeñ ok jeex na tàkk d'accord ex ne ko jigéen ñi lañ wax ñu. alors rapidement rapidement est-ce que wan ñu juste quelques modèles balaa ñuy tàggoo parce que. Euh, euh, ñu ngi bëgg a ñu ngi bëgg a muur besel pardon besel da nga bëgg a muur besel ak ayca leen waaw rapidement. eh waay on a gis nga il est actuellement 10 euh, heures 6 ah voilà. après nga muur Pape Cheikh ngeen xool yéen ku nekk lu yàlla wax. ak ni ngeen rafetee xool lu muy lu muy joxe. donc Pape lii laa lay wax fait lii dafay ñëw wàcc ba si sa. si uh-huh. bi ok donc du coup bu la neexee kon après nga musóoru. mais Mia accessoire yi fan la ko nit yi di jëlee. parce que du ñëpp ñoo ko. nan la woo rek ah studio man rek la ñuy woo. voilà alors en attendant nga leen di muur euh, nga leen di muur Modou Mouhamed Ndiaye itam mu ngi pare nga leen di euh, defaral musóor ak euh, ak Ibadou Mamadou Mouhamed Ndiaye mu ngi pare est-ce qu'il est prêt de l'autre côté Mao Cissé bu fekkee pare na. on va le retrouver dans quelques minutes ni moo jëm ci. yéen kaay yi li mu nafar ñu jël ki nekk ci téléphone bi alo allo oui soxna si na def. maa mbaa yaa ngi ci jàmm. alo ngi mbaa yow yaa ngi muuru. dafa xew. waaw ngi jéem maa ngi jéem. yaa ngi jéem bu rafet bi moom mënuma ko. noo noo gisee suñu xarit bi bi ñëw tey di def euh, muuraay yeeg euh, ñoom seen di sellal. affaire bi daf ko jàpp trop. bu hmm. fekkee ñi muuru ñëpp noonu la ñu mel moom ñëpp dañu war a muuru. waaw. Ah. te te en fait euh, defe na sellal am na solo ci jigéen bu mu mënti doon ah. fii ci réew mi. Ah, ce sont les mhm. waaw noo tudd ak fan ngay woote man maa ngi wootee Anne maa ngi tudd Sendé Ba. mais nag Pape Diallo li ngay wax lekk bëri de. waaw nga ni. Sendé Ba. Mariste laay yaa ngi wootee Rufisque. Anne Mariste. ah Anne Mariste d'accord Anne ngay wootee ñu ngi lay déglu waaw. waaw non non en fait c'était pour le pour les 100 000. ah da nga bëggoon ñu may la cent 000 yi. pour ah, pourquoi pas. waa 100 000 yi tey bu ñu la ko mayoon euh, loo ciy def. xanaa yow laa ci njëkk yëkkal lekk parce que sànq ba léegi affaire lekk rek ngay wax. waaw affaire lekk laay wax Diallo laa sant. waaw balaa sant moo tax ma remarqué loolu ci yow. no no dama xam ni yéen ñi sant ba da ngeen bëgg yeewu leen donc du coup il faut ma leen di bëggal ci lekk yi ñuy waxtaanee ci émission bi. <laughs> yow kañ cent mille ma ci gagné yow yaa njëkk am saako ñebe. <laughs> dinaa la may ñebe nga xam parce que xam naa ni yow ko bëgg ñebe nga. léegi da nga ñuy fàttaliwaat sa tur ak fi nga dëkkee. Anne Marie si nga dëkk. waaw maa ngi tudd Sende. Ba. Sende Ba. E e. d'accord léegi euh, dangay toog nga déglu yàlla baax na may ñu nopp rek te nga déglu bul noo yeeti fileeg 11h mën nañu laa woo may la mille francs yi. d'accord ok ça marche. dégg nga. waaw mais mais mais en attendant en attendant mën naa laa mosol tuuti ci xaalis boo xamante ni dañ la koy may noonu rek muy sa dépense su kër. d'accord. ñeenti junni dina baax. waaw dina baax pourquoi pas. bu ñu la joxee euh, dépense su vingt mille bu ca kanamee ñu tànn sa numéro may la cent mille day day gën a neexati. day gën a neex kañ dinaa la ci toggal moom ganaar. <laughs> jërëjëf kon tu gardes la ligne comme ça nga jël say vingt mille bu ca kanamee mën nga dal ci cent mille yi. merci ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. 88 628 22 22. alors ah, bésal nga defaral li Mia. waaw eh waay Samba xool leen bésal. xam nga mu ngi nii su solee yére boo xam ne euh, dënnam feeñul. waaw jeex dafa musóoru. Ah, nëbb après musóor bi wàcc pour muur quand même dënn bi. parce que moom lii mu def nii mooy pàccal. waaw te pàccal vraiment boo dee. bu solee yére boo xamante ne waaw pàccal àndul ak euh, ak muuru. ah pàccal àndul ak muuru c'est magnifique. <laughs> su solee yére boo xam ne ñëw na ba fii rek. du soxla col bi di wàcc en fait parce que lii nii moom mooy compense mooy nëbb pàccal bi quoi am na am na yoo xam ne en fait moo gën a gudd sax. ok yu gën a wàcc nii quoi muur yëpp. ok et pour pour Mado moom. Mhm. dama li exclusivité la nag xam nga yaa ma sonal démb nag. waaw <laughs> voilà en fait pour déjà ñi ñiy doogu muuru nga xamante ne dafay metti pour ñu xam technique yëpp. waaw donc du coup dama créé ay chapeau lii mhm. nag échantillon la si chapeau yi ma créé. ci chapeau yi chapeau yi ngay defar. voilà donc da ngay ñëw rek <laughs> sol ko. li si des nga kii ko. yomb naa defar ko yomb naa defar ko d'accord Mamadou Mouhamed Ndiaye yaa ngi taxaw yow itam euh, euh, defe naa muuraay bi ñu ma muur tey soxna yi am na am na solo de Mouhamed. am na solo am na solo bu rëy sax Pape Cheikh muuraay yooyu. ah euh, mais euh, joxaan ma bijou ma xool ko. ma xool bijou xoolal rek. waaw ma xool bijou Ndiaye xam nga lu tax. waaw ah. euh, ci Mado la ñu waroon dem xam bijou dafa yor kanamu kamikaze. mais xoolal ñu ngi dem ci Mado boo ko muuree rek. dafa am lu ñuy fàttali. <laughs> Mouhamed xoolal na trop. xoolal Mado xoolal Mado. ma xool Madeleine. ah Pape Cheikh. waaw li ñu moom dara dàqu ko. <laughs> xoola rek bi ñu leen muuree ni ñu soppeekoo ak ni ñu jekkee. mais mais tous mais mais mais Mouhamed loo ci xamul Bessél dafa ñëw ak pàccalam mais Mia mi nga xam ni euh, professionnel la xoolal ni mu ko soppee ba pàccalam muuru. ma xool xoolal xoolal xoolal pàccal ba feeñatul. ah mm. foroxatul de. rafet lii jekk lii jàng Pape waaw ajjuma ju nekk. Ah. nii la jigéeni Sénégal war di def. wallaahi ah, buñ ci jugee nag. Ah. wéyal ko pour euh, oh, jour yi. non c'est très joli c'est extraordinaire Pape dernier ñu ngi àndandoo ak yéen en direct jëm 11h. seen matinale la yéen yéen a ko moom fi mu ne ñëpp muuru grâce ak Mia mi ñu ñëw defal rôle king pour voiler alors euh, Mia on est content certainement am na ñu bëri ñuy seetaan ñoo xamante ni bëgg nañu xam fu ñu lay fekk. alors am nga itam information. oui bien sûr waaw bien sûr donc euh, je peux donner mon numéro. 250 77 252 18 17. donc euh, je 77 252 18 17. ko fàttee rek ngeen jàpp ne 252 moo jiitu 18. pompiers 17 police. <laughs> Euh, voilà actualité am nga am nga looy présenté aussi. voilà demain en fait depuis le 8 mars. le 8 mhm. mars dama organisé woon benn journée brunch. Mhm. entre femmes. Mhm. nga xamante ne jigéen ñi dañu dajale woon ci benn restaurant. ñu toog ku nekk waxante partager idée ku nekk wax ci lan ngay yëngatu. et tout donc euh, ma proposé waa leen ay produits proposé leen ay foulard ay maquillage tout sax ba pare defal leen ay atelier jàngal leen nu ñuy maquillé woo jàngal leen nu ñuy muur et nag ne ma non non da ngay biisaat uh-huh. donc finalement dama koy continuer ba mois d' uh-huh. donc euh, samedi bi mooy euh, samedi demain uh-huh. euh, caravane Beauty brunch de Mia mm-hmm. voilà 15 mars invitation voilà donc waaw invitation joxal ma bijou Mado ak Bessel ah, voilà donc bokkoo leen waaw yéen ñëpp ñëw yéen moom ñëw leen sans invitation voilà donc de 10 heures à à 17 heures restaurant Mamimia sur Mermoz donc voilà dinañ am atelier maquillage voile et tout ça conseil en image même morphologie sa sa forme lan nga war a sol loo warul sol et cetera dina am lépp ak produit yu baax. bilaay damaa bëggoon fàttali ko démb quoi def le bisou nii mais bon sañu ma ko. nii la quoi nii la voilà. voilà <laughs> <laughs> shukran merci. merci à toi et bonne merci à toute l'équipe de TFM ça m'a fait plaisir. Merci. voilà yow sama frère nga ex sama frère la. voilà Mado Bessel Bijou voilà. on est ensemble. merci Mia merci voilà donc joxe na numéro téléphone am et puis ko fekk ci Facebook et tout ça comme ça mu di digal lépp lu jëm ci wàllu euh, sañse pour.